wa ala alihi wa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel ci suñu bés bi di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin li tax ñu wax loolu ak noyyi goo xam ne dafay rëy lool mooy dafa nekkoon mébét nekkoon bëgg-bëgg bu njaboot gi yépp bëggoon waaye nag ren na ko yàlla dogal ñu ne woon donte benn waxtu lañuy daje mu nekk waxtu bu symbolique ñu ñaan tàqalikoo nañu fexe ba mu taxaw kon bu yàlla dogalee mu taxaw nii ñu ngi sant yàlla moomu nga xam ne ci coobareem ci iraadaam ak ci ay man-maneem ak ci machiyaam yàlla may nañu ñu taxawal lii yàlla nañ ko taxaw at yu baree bari di nuyu kilifa yi nga xamante bii ni ñu ak ñoom ñoo bokk jataay bi di indi nuyoo Serigne Mouhamadul Mounir al Khalifa moom ba 23 heures moo dem burdu ba ci guddi ndax dañu ne Ibrahim mooy waxtaan. Mm-hmm. ma ne dinaa dem ci burdu ba ngir ma encouragé Ibrahim ci coono yi muy daj ci gàmmu gi. Mm-hmm. ma tàbbi ci loxo sëriñ bi ci 9 mm-hmm. fekk ay réglage wala ay waxtaanu ñu waroon du mujj waxtaane ci kër gi ndax lu ñu yendoo. ci moom laa nekk ba 11h ma génn. ne ko ah alaaji man mënatumaa dem sax burdu ba ndax damaa sonn maa ngi dellu sama kër hmm. bi ñu tàqalikoo mu ne ma dangay dem ci seen daje bi ëllëg ma ne ko insha allahu dinaa ci dem hmm. wéttali siidi ak comité bii nga xam ne muy suuf commission la ñu teg ci ginnaaw siidi hmm. ñooñu itam ñu ngi leen di félicité bu baax ndax loo gis day am fu mu tàmbalee loo gis day am nuñ ko tàmbalee loo gis day am nuñ ko waxee lii ay nit ñu am pas-pas ñoo nekk ci ginnaaw Sidi jiital ko ànd ak moom mu nekk ci suufu papaam alxaaji Ahmad Baro Njegéen mii moo waral lii mën a am Sidi nag mention spéciale ndax réunion bi ñu mujj def ci kër imaam As kii ñuy wax aadama Dieye ci commission boobu la bokk mhm. ci guddi bi ñu dajee ba ñu rey réunion ba tàqalikoo moo mën a Sidi Dey bu yëf yi doon fukk def na juróom benn yi mhm. kon ku liggéey say mbokk wala say nawle yi nga àndal war nañoo reconnaître sa liggéey waaye liggéey boo gis walla kilifa goo gis mu jiitu dana am ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne ñoo ko gën a xarañ ñoo ko gën a xam ñoo ko gën a am pas-pas waaye nag yàlla mooy tànn kiy jiitu kon lii ñu ngi ko taxawal ci cadre comité d'organisation mawlud kër alxaaji ahmad baru njegéen sii di sonn ci lool di ci waxtaan fu mu toll di ci wax ay mébétam fu mu toll ba yàlla dogal ren lii mën cee am ñu am yaqiin am njort bu rafet itam ne lii insha du dellu ginnaaw gàmmu gi amul lenn loo xam ne ca mag ñi ba tey ñu ngi ko ciy def muy dellu ginnaaw te lii ci gàmmu gi la gàmmu gi garab la garab gu rëy la gu am ay bànqaas yu rëy lii bànqaas la ci garab googu lii tey jataay bii ñu toog fii ne dañuy def forom di waxtaan ci tasawuf seet ay borom mi xam-xam yoo xam ne borom mi dëkk bi lañu waa dëkk bi lañu ñoo ci taamu loolu alaaj Ahmad baru Cees la amoon taawam bu baax bi fi nekkoon alaaj Muhammad Njegéen Cees la amoon ñun Cees la am suñu kilifa yi ñoom ñëpp Cees la am kon lu ñuy am Cees lañ koy bokkal moo waraloon Sidi moomu njëkk a wax turu professeur Muniru Ndiaye ma ne ko kooku dinaa koy dégg di ko gis ci télévision bi waa dëkk bi la mu ne ma waaw ma ne ko ah kon di d'accord na mm-hmm. ma ne ko Abdou Khadre Sanoxo mm-hmm. soppe kër gi la doom li ci kër gi te boroom xam-xam la te fii lay gàmmoo ma juróomi at ci sama saal bii nañ ko ci boole sii di toog ñu téléphoné Abdou ñu toog tuuti du téléphoné ma ñu wax mu ne ma Pape Alxaaji Ousseynou lépp lu ngeen ma defloo ci wàllu xam-xam dinaa ko def ci jataay bi ngeen bëgg ma ne ko jëlal kontaku Sidi mii suñu doom la lépp loo xam ne yaa ngi koy wax wax ko ak Sidi ñu lim ñeneen ba egsi ci Adama Guèye egsi ci suñu jarbaat Cheikh Ablaye Dieye mm-hmm. ñu ne moom kenn gënu ko ci yeeye loolu mooy choix bi nga xam ne moo tax ñu tànn ñi ñun ñu bokk ak ñoom dëkk bi war leen jàppale war a ànd ak ñoom wane ci àddina bi ne ñii boroomi xam-xam lañu bu leen kenn soxlawul it Cees soxla na leen. rawatina njabootu Alaaji Ahmad Baru Njegéen soxla nañ leen bu baax ndax dañu bëgg lii perpétuer wu gudd fan ba suñuy sët di ko def kon dañuy wut ay xale ay jeunes boroomi xam-xam yoo xam ne xam nañ suñuy wax ci ñun duñu juum. waaye nag siidi lépp loo xam ne yaa ngi koy def na nga dem ci sa pape alxaaji ahmad baro mu chapeauté ko noonu laa ko ko waxee def na ko na nekk président d'honneur comité scientifique bi demal ci moom demal ci moom demal ci moom ñaari fan ginnaaw sa gi siidi papam as daje ak man ne ma siidi ñëw na ci man indi benn këyit waaye li may proposé alaaj seenu man d'accord naa ci ñu ne ko lor rek mooñ ci ñor yow yow nangul rek ndax xalifa bi jox nañu ndigalam sëriñ Muniiru ànd na ci lii ndax lu yokk kër gi la lu yokk diine ji la waxtaan la ci xam-xam maamam Aziz d'accord suñu bàyyi alxaj Abdou Aziz d'accord na ci kon sii di tegu na ci yoon yàlla na ko ci yàlla gën a teg bu baax ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comité d'organisation bi nag moom mooy initiateur lii mu am sous commission ci biir ñu jël siidi boole ko ak ay nit ndax soo ko féetalee siidi personnalisé ko am na ñoo xam ne bu ëllëgee du ñu ñëw nit loo féetali nit la ñuy bañ non il faut que ça soit bien précis. Ah taala ci dëkk bi la. jaar seen si sa njëgeen mi fi bàyyi ko léegi. te ziar boobu doon ziaru sëñ mu Muniru ndax ndegam moom ci kàddoom wone na ko sëñ mi Muniru fi ne moom la fi neewaloon moom la fi ñekk ne ñëpp nekkal kon ziar bi benn ziar la nu jaarale ko ci moom mi mu yebaloon ah di nuyu kilifa yiñ dalal di président chambre de commerce waaye imam góor a it ci la bokk moom daa féete boor yëpp di ziar kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw wuy si ci woote bi di nuyutey tey ziar it sëñ si di njegéen ak ñi mu àndal taxawal forum bii di waajal gàmmu ñun sunu cër ak sunu wàll mooy dalal ci turu Cees yépp mu mel ne jataay bi ñépp ñu ñuy tuddee ay élus man maa leen toogal muy communes yi di ville bi di conseil départemental parce que ci laa bokk. kon maa fi toogal Pape Diop maa fi toogal Lamine Diallo maa fi toogal Aline Sow maa fi toogal sa Seck waaye maa fi toogal tamit préfet ak gouverneur maa fi toogal Macky Sall maa fi toogal état bi yépp te ci turu ñooñu ñépp maa ngi rafetlu jataay bi. di ànd ci ñaanu sëñ bi di sàkku suñu boroom lii nuy tàmbali tey wuy ba faw at bu jot mu gën a yaatu at bu jot lañ cay taataane ci wàllu xam-xam di gën a gindi nit ñi ndax def naa ne xam-xam bi loolu lañ koy doyee kon yàlla na nu yàlla niital te jàppale ñi nga xam ne ñoo yore waxtaan wi ba ñuy jàng université euh, dafa am ku ñu nekkaloon Jim Momar la tudd ñi ñu nekkaloon xeeb ko lool bis ñu war a def waxtaan ak bu université yëpp ma ne mooy def waxtaan wi ñi ma dégg ñi ñi di di di kii ci suuf naan waa xanaa président moom wérul xam kon baat boobu yàgg na euh, ma ne ko mooy wax de bi mu ñëwee di tàmbali la mu ubbee mooy wax de ñaar la mu ni làmmiñ wu set yéene bu rafet ah ñun ñëpp ñu nangu ne ñi mel na ñi ma àndal ñoom ci boppam danoo wérut ndax xam nga wér ci société pour ñëw li ñu tuddee norme maanaam société day tëral la mu tëral ku ko génn rek dañ ne wéroo ndax tey am na dëkk bu nekk ca booru Tibet boo fa demee dañuy def la ñu tuddee polyandrie maanaam benn jigéen day am boroom kër yu bari boo ko tuddee fii ñun ni ñi wéruñu waaye boo demee foofu nga tudd fa ni fii benn góor day am soxna yu bari boo demee ñooñ ne ñee wéruñu ndax norme yi ñoo bokkul norme nit nag moom ngay mën a gis nga dem ci barab ak ci jamono mu wuute bu barab yi wuutee norme yi wute bu jamono yi wuutee norme yi wuutee parce que nit ñi ñooy wuute ndax dañuy demee ci seeni i yëg-yëg ak ci seeni tolluwaay ak ci seen i kàttan seeni man-man ak ci seen jafe-jafe waaye yàlla fa mu tàmbalee fa la jëm fa la yem fa la toll dayom bi musta dañ mooy ki màgg féete ñépp kaw te luy màgg lu ne ñu koy natte ci moom ba tax na normam benn la mooy da koy xam baa nga bañ ko xam rek boo ko xamee rek tegu ci yoon wi siraatal mustaqim ba tax na ñun ñii ñuy tuddee nit mu jël boppam def ci ñun loolu mu def ci ñun dañ koy wutal tur yu bari te wuute ñenn ñi esprit la ñuy wax ñenn ñi di wax âme maanaam ruu te loolu deful leneen lu dul jàngale moom mooy kan ndax loolooy nekk ci nit ki mu wóor la ne mi ngi ci moom ba di ko conduire te doo ko teg bët ni la leere ni yàlla mu ngi fi di conduire lépp te kenn du ko teg bët mu mel ne jamono biñ koy bàyyi xel ñenn ñi mooy loolu mu jël ci boppam def ca nit ka bu ko rocciwaatee ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci moom lañ jóge ci moom lañuy dellu ñu dog ko bàyyiwaat xel waaye ñi yàlla dimbali nag ba leen di tuddee sufi ñooñu ñoom du ñu xaar jamono boobu ngir jox ki leen jox lépp lim moom ñooñu dañuy bëgg di dëkk ci fuñ toll ndegam am na lu yàlla roof ci ñoom ba tax ñu weesu ndawal ba tax ñu weesu euh, suuf bi ne ci ñoom ba we tax ñu weesu ndox mi ne ci ñoom ak yax yi ne ci ñoom c'est-à-dire looloo yàlla def ci ñoom ñoom fu ñu toll dañu koy sante maanaam cant googu ñu dëkkee ba mu yëbb ci ñoom ba feeñ ci seen lépp ba boo leen xoolee ni ah kii day leer a ngi ci moom je pense que loolu bu suñu boroom xam-xam yi toog loolu la ñu bëgg a waxtaanee ak ñun. kon valeur ne ci biir ndax boo nangoo sa sa borom li mu doon ci yow rek rafetal dalay lay war ndax lépp ma rafet ba tax ñu mu andil ñu ki gën a rafet ñëpp te jikkoom gën a rafetle bu ñëpp waykat bi new day miine woy ñàkk ñam miskin ya kenn du ko daw. di raay jirim ña di togg ak jaam ña di gaar dàllam te digg du ko jam di gaar mbalaanam di sol yuñ daax di xiif di mar di leb te du am waaw rafet googu rafet googu mu def ci moom ba pare teg ko ci kaw ñépp ñim mas a yónni c'est pour indiquer la voie parce que su ñu waxee siraatal mustaqim xam nga yoon boobu chemin direct boobu mais daa am fu mu jëm dafa am nu mu mel ci rafet dafa am aussi fu mu jëm fu rafet loolu nag loolu la ñu war ñu dinu ko fàttali ñun ñii nga xam ne maanaam lii tegu suñu kaw di mbuus te ànd ak ay ayib day faral di nu ñoddi bu nu bëggee dem fi rafet te baax mu bëgg faral di ñoddi dinu jëmale ci leneen lu dul lool valeurs yi nag mi ngi nekk ci maanaam fa nu war a jëm ak fa mu bëgg ñu dem ak na mu bëgg ñu mel mu demee ba ëpp doole ci ñun maanaam ñu ngi ci ay valeur valeurs yooyu dina nu dimbale ci yi ñuy faral di xew ci suñuy jamono mooy noonoo xëccoo xiiroo ŋaayoo te du jur leneen lu dul réeroo ak Benno te mooy indi histoire bu mu manti doon te ci document bi maa ngi ci gis ñu tuddee jamono bii nga xamante ne violence dafay bëri mm-hmm. te dara lalu ko lu lool dëgg nit ñëw na ne ma yow day diw sa noon la ma ne ko man du noonu kenn yenn saa yi nit am xarit yoo xam ne dañ koy doy noonu mm-hmm. waaye ñun ñi en li ñuy dal mooy doon sunu noonu bopp bis bi ñu demee ba wàcc ndigalu yàlla yooyu booba doon nañ suñu noonu bopp ndax buñ ko xamee buñ ko xamul liy neex ak di rafet ci suñu gis-gis te rafetul di baax ci ñun te baaxul mooy li ñu tuddee yenn saa ñu ni defar ba mu baax te am na loo xam ne yàq ba mu gën mm. daf ko ëpp solo kon di taxaw di frekante ñu mel ni yéen dafay am solo lool ba suñu bëggee rëcc rekk ngeen ngalaab ñu ñoddi macha allah day miinu way ñàkk ña miskin ya kenn du ko daw di raay jirim ña di toog ak jaam ña yàlla keroog ba Seydina Muhammad gane àdduna lépp lépp nga koy màggal fay Alla keroog la buur yàlla jël leer gu mësta melax dolli ko jant bi ñambaas weer wi yàllaaw weer wi siikar jant bi saabal bi diw yi di way garab yi meññeet mi neex saf sap yàlla woo moo tax ñu organiser lii nga xam ne fa tabaarakallaahu sëñ Sidi Mouhamad Njégéen doomu Sëriñ Moustapha mooy ki nga xam ne moom la yàlla jox mu taxawe ko jëkk ci xalaat ci fekk na sax ay baayam xalaatoon ci waane moom nag moo judduwul woon pour àggale ko ñun xalaat nañ ci luy bari man ak sëriñ Cissé ak sëriñ Muniru Ousmane ak sëriñ As Njëgeen mi ak sa papa sax sëriñ Moustapha xalaat nañ ci waane dama ne lu xew léegi rekk te mu bees am na ñu ko xalaatoon waane nag yàlla dafa indeegul woon ka nga xam ne moom ci moom la war a jaar doomu sëriñ Moustapha yi ñëpp la yàlla defal ku nekk am na lu mu la jox ku nekk am na mbaax gu mu la jox ku nekk am na tam loo sos waane yow sa sos rafet na am nga sa cër jox nañ la ko a ah, ñun doon nañ ko xalaat waane mu ngi soog a yegsi fa tabaarakallaahu nga xalaat ci ci ñu waxtaan ci affaire yi suuf yi waxtaan ci suufi boo xam ne moom la alxaaji Ahmad Baro indi te damay wax ne mag ñi ñépp magi diine yépp yépp ay suufi lañu ndax am na ku ma laaj keroog ba ñu dajee ca te comité scientifique bi ñëw ñu dajaloo di waxtaan am na ku ma laaj ne ma ñu man dey suufi daf ma leerul lool ma xamal ko ne suufi dinañ ko wax safa safa mooy boroom xol boo xam ne dafa set te leer mën nañoo wax ne suufi dafa am échelle puisque suñu boolee yépp nag li jëkk mooy al iman gëm iman mooy tawxid mooy ixlaas mooy tawxid mooy gëm ak pas-pas pas-pasu diine lu ca tegu al islaam li nga gëm nga wone ko ci biti mooy islaam ka ca tegu mooy ihsaan ihsaan nag mooy suufi puisque dangay ngay sellal te loo gis rekk rafet na ci sa bët léegi la sëñ ci sa wax benn bayit nee na euh, euh, nee na àdduna bi yow yàlla gis naa la ci gis naa la ci sama bët maa ngi tam di la wax ci sama làmmañ di la fàttaliku sama bët tam mu ngi gis sama làmmañ a ngi tudd sama xol mu ngi xalaat kon nag yow nooy def ba réer ci man yow yàlla ahlu tasawuf nag noonu lañuy xalaate kon ixsaan mooy tasawuf mooy loo xam ne dañ la ko tànnal xam nga woy boobu ngay wax manaan naan man za yu daaxika wal akwaanu maa xulixat illa li ajdika wal mawla stafaaka lastafaaka boobu lahu yàlla moo la tànn ngir yàlla tànn boobu nag dafa sellal sa xol ba mu leer te it képp koo xam ne dem nga baroy Seydina Muhammad a ah, soo amul lépp it yàlla dina la compal ci moom mooy sunu mag ñi rekk ñoom ñépp ay suufi lañu te koo ci gis dafa jaar ci li ñuy wax culture islaam benn mënta ñàkk ci sunu wàllu bopp li nu jàpp nun benn xadra bi la xadra alaaji du Baro yàlla baaxe nu nu yor seen kàddu ci ndigalul sunu wayjur alaaji Muhammad yàlla dinu baaxe itam mag ñi nangul nu ko bi fi sunu way jur jógee ba tey itam gannaaw boobu kilifa yi it ñoom ñëpp xam ngeen ne sunu way jur alxaaji abdul aziz mu nga ca yeneen yitte ndax mageem sëriñ mu muniru waxtu wi ku ko bëgg a wax dëgg yàlla xamoo li xew kon dañuy toog seen place gannaaw sëriñ Abdou Salaam taxawal leen toogal leen bu dul woon loolu it mën nañu ba ñu ñëw gàmmu gi wax dëgg yàlla bu fekkee ne dañu dellu ca gannaaw bi mag ñi dajee suma woyu jur alhaji Mouhamed ak rakkam yépp bi sunu bàyyi alxaaji wa seenu génne àddina bi ñu dajee teg ko ci sunu loxo nun maak samay rakk yàlla dinu baaxe nu nekk ca tabarkalla mu ànd ko ak sëriñ Moussa ànd ko ak sëriñ Malick bi alxaaji du bari ñëwee itam bokk àndundoo ko ak nun boobu ba tey itam fa tabarkalla ñu ngi bokk di ko doxal taxawaay yépp ñu di ko taxaw kon responsabilité boobu ba tey luñ ca délégué délégué délégué délégué bu jotee nu xam ni war nañ ca taxaw lañ ca war a taxawe kon loolu la ñu taxawee beneen bi ci des itam euh, Sidi Mouhamed Moustapha bi promoteur u lii ndax itam li mu wax sànq dëgg la mbir bu nekk yàlla doom koy jaaraleel ñun amoon nañu yitte wax dëgg yàlla suñu ñàkk yitte ndax euh, ñun ak way juróom ñoo daan bokk lu nuy xalaat ci gàmm gi lu nuy xalaat ci yëngatu yi ñoo ko daan bokk ah, waaye lii ubbiteg lii nga xam ni jataayu xam-xam la jataayu gindi la jataayu itam dolli feeñal ku yàlla feeñal ba noppi dellu ci jeexiti ñi nga xam ni itam fa tabaarakalla ñoo war a doon référence sallallahu alayhi wa walla wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana c'est le modèle parfait dama wax bërki démb ne nit boo ko dee jël modèle bala nga koo jël war nga ko xam ma ne chance réew mi lañu xam porté boobu daje yu mel nii gàmm ak yeneen xew-xew ñu war ci wane yonent bi sallallahu alayhi te bañ ci wane leneen loolu nag jar na lu nekk alhamdulilah yàlla defal nu ci sutura kon taxawaay yooyu lañu taxaw ci taxawaayu mag ñi di ñaan ci yàlla Sidi Mouhamed mi nga xam ni woy juróom sëriñ Moustapha mu baax ma daanaa ko àndandoo ak ñun bu doonee promoteur bi te sëriñ Moustapha itam ci baaxu yàlla mu délégué ma tutoraawu njabootam yëpp kon itam war naa taxaw ndax mu xam ni itam sëriñ Moustapha ngi taxaw kon loolu la ñuy sant yàlla di leen ñaanal di ñaan yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaay bi ñu bu nu santee kilifa yi diine yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi sant kilifay aada yi sant kilifay nguur gi te jiital ca président de la république ak gouvernement sant leen it ci taxawaay bi ñu taxaw ci wàllu gàmmu gi seen démembrement yi ci région bi war na nu sant di ñaan ci yàlla yàlla jàppale leen yàlla def jàmm ci réew mi waaye nag sant sunu gouverneur ci région bi sant sunu préfet sant sunu sous-préfet waaye nag sant suñu maire mi ñu sagale dikk bokkandoo àndandoo ak ñun toog te dama wax ca ba mu ñëwee ca kër maam ji di door a ñëw ci dëkk bi dama ne ku koy xool bu ko xool ci parti ku ko xool ci leneen xool ko ne ci citoyenneté esprit citoyen la waxe moom la bëgg a Euh, li nga xam ni moom la bëgg a def ci dëkk bi te alhamdulilah yàlla ngi def sutura.